dégg-dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rekk kaw koy lees mbokku déglukatu rajo Jokko FM asalaamaaleykum wa rahmatullah dalee na jàmm ci seen émission jàkkaarloo politique ni ñu tàmmee di ko defee dimanche bu jot ci rajo Jokko FM 87.7 nekk ci Tëngéej jàkkaarloo ak mairie bu Tëngéej tey ñu am nag euh, gan jëm ci li nga xam ne moom moo di euh, mbirum euh, yoon wala wàllu justice naka noonu yi tamit ci li nga xam ne moom moo di doxalin bi ci élection yi nga xam ne ci lañ génn nii Moussa Pouy moo nekk ci waxukaay bi Assane Diour féete ci xarala gi gërëm sant ki nga xam ne tey jii nii moom la ñu fas yéene àndal ci bileb émission di suñu gan di professeur Ahmed Ndiaye professeur Ahmed Ndiaye moom kàngam la. Euh, ci wàllum euh, constitution naka noonu yi tamit euh, ci droit constitutionnel suñ ko mënee gën a fësal ba noppi nekk ab jàngalekat ba noppi nekk ci université bu ndakaaru di jàngale lépp lu jëm ci wàllum yoon dañ ko bàyyi ak yéen yi nga xam ne yéenay mbokku déglukat yi mu tënk aslëf li nga xam ne tamit moom moo di tolluwaayam ci li nga xam ne moom moo di présentation bi waaye dinañ dugg ak moom ci laaj ak tontu ci li nga xam ne bëri na jamono bi ay jiixi jaaxa ci askanu Sénégal. Sénégal ci ni nga xam ne processus électoral bi ni la tëddee li nga xam ne itam moom moo di ak yeeslu gu gouvernement bu yees bi nga xam ne ah, samp nañu ko te ah, kii di Bassirou ah, Diakhar Diomaye Diakhar Faye nekk ca bopp ba ba noppi tamit toftal ca ab njiitu jëwriñ na di daanaka Ousmane Sonko mi ñuy woowee ab mantooram dañu bokk tamit lépp loo xam ne ay réforme la ci wàllum justice naka noonu tamit li nga xam ne nekk na ay samp wala bon ay acte yoo xam ne gouvernement bu yees bi def na ko ak li nga xam ne président Macky Sall mu fi jógee nemmeeku nañu ko ci nag itamit ay coppite ci wàllum nguur loolu lépp dinañ ko faram-fàccee ñu bàyyi de professeur Ahmed Ndiaye di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku déglukat yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sama xarit Moussa ci dalal bi ma dalal tey ci rajo Jokko. Euh, di gërëm euh, euh, suñu techniciens yi di gërëm ñëpp ñi xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi di wax mbégte bi ma am daal pour ñëw tey jokkaloonte ay kàddu ak yow ci tolluwaay tolluwaayu réew mi ci wàllu droit ci mbébét yi ci peut-être li fi jaar nan lañ ko war a mën a natte di la gërëm di la sant véritablement parce que sama nit ku baax nga te yàgg nañu daal ci jàmm ak salaam. macha allah donc euh, professeur Ahmet Ndiaye tey moo doon suñu gan mbokku déglukat yi euh, ñu fas yéene nag dugg nag ci li nga xam ne euh, moo ñu dajale euh, professeur dañuy def fii saa su ne ku dugg rek bu fekkee ne bii mooy sa guléet ñu bàyyi la nga présenté wu xam naa yow du sa guléet mais am na fu ñu jaaroon foo xam ne présentation bu jotul yaatu kan mooy professeur Ahmet Ndiaye ci gàttal ci wàllum njàng ci wàllum justice wàllum droit. waa professeur Ahmed Ndiaye euh, doomu Bargny la doomu Lébu la professeur Ahmed Ndiaye euh, euh, jànge na lycée Abdoulaye Sadji jàngee na sax ngay mexe ca ay ndorteelam après ba mu amee bac dem na France dëkk bu ñuy wax Montpellier jàng fa li ñuy wax droit droit constitutionnel droit publique ba mu paré la jël ay bagaasam ne day ñibbise Sénégal nonu la ñibbisee Sénégal ba yalla dimbali ko ñu jël ko ci daara ju kawé ji ñuy wax université Cheikh Anta Diop de Dakar fofu mu di fa jàngale lepp lu aajo ci walu droit public droit public nak buñu ko tënkee moy lepp lu ñël état voilà euh, administration yu makki ak sen doxalin sen bir ak ak euh, citoyen sénégalais yi euh, donc professeur Ahmed Ndiaye aussi dina fa diriger ben master wala ñaar yu ñuy master euh, droit et administration des collectivités territoriales donc ci gattal d'al pour mu bañ a gudd trop parce que loolu du soleil émission bi mën nañu nonu professeur Ahmed ñu koy euh, jaajëfal defe naa tey jii nii mbokk yi di ngeen nangu ne tey jii nii ñun am nañ gan <laughs> donc euh, ci loolu euh, la ñu ko tax sax ñu gën ko namm invité ndax fii ëttub politique la li tax ñu gën ko namm invité ci émission bi mooy daanaka li jëm ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum yoon te ci élection yi ñu seetlu ko mu amoon ay jiixi jaax yu bëri ci nga xam ne ñoom ñoo di askan wi alors professeur professeur processus électoral bi fi jàll tey mu jëlee fii. Euh, tey ak nguur gu euh, fi nekkoon euh, ca atum 2012 ba suñ jon yàlli tey nekki tamit boo xam ne samp na fi yees benn nguur bu bees boo xam ne amaana sax kii mooy président bi gën a ndaw ci ay at ci li nga xam ne moom la ñu seetlu ci ñi fi jot falu tey ji ni processus électoral bi ban jàngat ngay am ci ni mu déroulé ba ñuy tàmbali di wutal gaañi ay porox ndoll pour ñu bokk ci élection yi ba fi nga xam ne fi la ñu voté waaw di la jaajëfal ci laaj bu jëkk boobu euh, di la wax ne rek euh, bu ñu nattee yoon wi ñu jaar ba mën a yëgsee ci palum Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy juróomeel président bi Sénégal am depuis mu moom boppam euh, dinañ wax ne jaar nañ ci ay ay ay ay ay yëkk-yëkk yu bari buñ ko mënee tënk ci ci ci ci climat dinañ wax ne nawet na fi noor na fi taw na fi euh, même neige am na fi <laughs> lu nekk xew na fi ci biir Sénégal njaay bi <laughs> diggante ñuy jublu ci mbiru élection ba keraa ñuy mën a tànn vingt-quatre mars bi passé suñu président basiru Diomaye Diakhar Faye mu nekk loo xam ne def naa képp ku nekk sénégalais ak ñu nekkul sénégalais sax africain yi même ci àddina wërngël képp ku nekk am na ci yëg-yëg surtout que toll woon nañu foo xam ne guddi yi lëndëmoon na trop te wax dëgg yàlla bu ñu deful gisaane kenn xamul woon nan la mbir yi mais di sampo ak nan lay mujjee ca njeexital ba mais sunu boroom ak ki pexeem ak ki man-manam ak ki yërmandeem euh, teg na loxo ci Sénégal ba tey loolu lépp ay nettali lay doon te loolu buñ ko jàngatee jàngat bu ndaw mooy que ne Sénégal démocratie bu buy waaj a yàgg la waaye démocratie di loo xam ne day sax abadan man dañu koy suuxat di ko nemmeeku di ko xool fan la tollu ndax yaram bi tàng na wala yaram bi tàngul et ci jàngat biñ ci am daal mooy que ne war nañu andiwaat ay yokkute an war nañu andi ay coppite yoo xam ne day gën a euh, yokk ndëgër laay suñu démocratie ba ëllëg euh, liñ fi dundon ci jamonoy Ablaye wad dund ko ci jamonoy Macky Sall dundoon ko sax si jamonoy Abdou Diouf mais mu nek lo xamne netali lay doon sunu gannaaw manam bi président de la république jëlee décision bobu ne day day ajandi toxol élection yi njaaxare dugon na ci Sénégalais yeb bañu xolé aussi élection yi bañ ko commencé saytu di jël ñi xamne ño ñoo nek nekk président de la république candidat yi gis nañ ne coow li bare yoon na trop am na ñoo xam ne war di ni jaar na fi mbirum parrainage bi andi. fi mbirum parrainage bi andi fi coow lu. pour ñu valider candidature yi également. waaw pour valider candidature yi maanaam ñu dëggal leen gis nañ ne coow li bareewoon na trop donc bu fekkoon ne dañuy noter sur 10 mhm. mën nañu wax ne ba na ngay jox Sénégal. am nañu moyenne 5 pour ñu bañ a. Euh, bañ a naagu bañ a naagu parce que ku naagu. gaa yi dab la romb la te gëm naa ne ci bu ñu jàngatee jàng wu teey wu dal ci li fi jaar yëpp mën nañ ci jëlee ay ay ay ay ay ay ay mbir ay jumtukaay yoo xam ne dina tax ëllëg élection du nekk euh, jamono tiis jamono naxar mais day nekk rek euh, moment boo xam ne jamono joo xam ne peuple bi day ñëw taseeg ñii bëgg euh, nekk seeni njiit mais mu décider wax ci coobare bopam souverainement mais kan le kan le bëgg jël jital ko. mais mais justement tay professeur euh, li nga xamné modi processus électoral bi permettre na aujourd'hui ñi nga xamné ñom ñoo di euh, sénégalais yi tànn te tànnin boo également vote bi presque bala ñuy bala 18 h di jot fekk na ñu ci bëri voté nañ ba noppi pro euh, vote bi également tax na ba décompte yi yomb par rapport ak li nga xamné mom modi

maanaam dañ ciy waxante ay dëgg. kër gi yëngu kër gi yëngatu. <laughs> et bu ñu jógee ci yooyu kër yu bari yu defaru tey dañu jaar ci foofu te réew noonu lay doxe te gëm naa ne. te day wane sax grandeur u dëkk ndax toll ni métit yu ñuy toll jafe-jafe yu ñu toll ba am sax lu ko jiitu ay bakken yu tey jii nii macha allah finalement def nañu sax euh, li nga xam ne moo di ab amnistie ci fee yi nga xam ne jotoon na fi jàll ñu baale ko waaye tey Sénégal taxawaat na dëbbu. xam nga am nay jamono dama ko doon wax mais dafa xawoon jaaxal ñu bari. ma ne leen crise bi ñu toll nii yàlla mën nañ dimbali ba ñu ko gërëme ko Macky Sall. waaw def nga ay sorties yu bëri quand même. a vu euh, ma ne leen mën nañ ko gërëme Macky sàll ëllëg parce que daf ñu yóbbu ba fii teen bi gën a xóote fi mu yem. Mhm. te boo yeggee fii teen yem lenn rek nga man yem man def mooy nga tumbiwaat. waaw ni xale yi di waxee nga yóbbu ñu ci miiru euh, miiru wis bi. mais c'est ça et donc je que ne crise bii bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn ci. man naa wax ne Sénégal nekk ndëg nag ci yoonu nekk démocratie dëgg bu am dëgër laay te élection yi lii tax mu gën a leer peut-être dem na ba le président Macky Sall xam ne wooññeeku rek ak siwu ndox mu sedd moo ci des parce que communauté internationale bi. Ah, pression bi bi bare yoon na am na lu ñu taxee woon ba président Macky Sall mais mënu woon def leneen lu dul dellu gannaaw. beneen bi mooy coow yi fi am yépp ñi fi dee ñoo ngi jaale seeni njaboot dama ne réew élection waratul man tax benn bakken di faatu te bu ñu xoolee élection wu 24 mars bi gis nañ ne ganaar sax deewul wala bu deewee peut-être njaayeen yi la wala njóobeen yi. <laughs> pour bañ a tooñaate pour bañ a tooñaate ma dugal ñun ñaar ñëpp ci biir mais di wax simplement que ne. loolu dafa tax sénégalais yi gëna a mobiliser élection yi waxon nako dès le départ bindon nako ko ma élection yi ñu jëm dañ ko war mengalé ak référendum mhm. dañ ko war mengalé ak élection wu deuxième tour ma lima leen gis ni bu ci yalla defee jàmm le 24 dinañu am suñu président de la république parce que dama doon sentir di am yëg-yëg ci sénégalais yi ni ñu taxawee tem mais pour acter pour acter en réalité le bilan du président Macky wax dëgg yàlla il faut que Macky Sall ñu xam ne bilan matériel def na ay jéego yu rëy waaye dama leen yàgg déy ne leen jamono toll na foo xam ne bilan ñaari pàcc la. ba ñuy teg dafa am bilan matériel maanaam tabax yeeg pont yeeg terre beeg BRT. ak bax aajoo ci jikko xel mais dafa am bi xam ne kenn du ci teg mën nañ si sax teg bët. Mm-hmm. parce que boo gisee li xew ci kasoy Sénégal ci diir bii passé. Mm-hmm. loolu mooy bilan immatériel. te léegi électeur buy dugg ci mbeñ gàcc di jël sa xob di ko sànni ñaar yooyu yëpp ngay àndal da ngay bu doon bilan matériel rek. gëm naa ne Macky Sall kenn du ko ŋàññe dara ci Sénégal mm-hmm. waaye man bu ma jëlee sama cas personnel binaa matériel mu may waa immatériel mu may waaj a ëppal solo bilan matériel. ndax moom moo gën a mën di des. mais parce que des si dënn des si xel. mais sama sama liberté suñuy liberté ni ñu koy salfañee wala ni ñu koy cërale ni ñu koy aare mais faut la ñuy démocratie est ce que de là faut permettre sénégalais am un autre regard de la gestion de Macky Sall au point que on a plus sanctionné que voté pour élire un nouveau président. non man damay wax ne ñaar yëpp la en réalité euh, bo defoon touti enquête ci dëkk bi di nga xamné ne luy sénégalais yi ñu ci bari. d'accorduñu ak Macky Sall te ñoo ko faloon en 2012. est-ce que datewul depuis vingt depuis deux mille vingt et un en réalité depuis vingt et euh, deux mille vingt en un la ñu mën a wax ne Macky Sall fa la ñu ruccee nguuram man doon naa ko analyser ak samay xarit mooy mooy mbarta ba rek ak jaasi ja c'est-à-dire que da ngay làmb daj mbart bi def na yaa nga ca. Mhm. alors que jaasi bi rocci nañu ko. alors que doole ji xam nga Macky Sall taxaw na à l'étranger ne maa yor doole ji maa yor gendarmerie maa yor justice maa yor armée maa yor xaalis bi budget Sénégal mais ma ne président attention. day fàttali loolu état la. parce que boo xoolee keroog nii garde du corps yi wooññee ko bàyyi ko muy dem këram ñu jublu dëkk mël ci Bassirou Diomaye fay l'état est impersonnel. d'ailleurs ci ci euh, discours message bi nga xamné euh, président du conseil constitutionnel adressé au chef de l'état nouvellement élu xamal ko la force de la démocratie moy dem voter ji té que nous avons trop si sénégalais wané nañ ko fofu non ñun Sénégal depuis 1848 nous ngi voté dañu am euh, ci suñu nous la dem voter ji ay jafe-jafe jafe-jafe ak rekh rekh rëx ñak mais amna yakhin bu tuuti kane ci ni ma mbir yi mu commencé ko doxé élection yu mëna ñëwëti ku ci gañu lanen mo lay gañ mais du nekk ti mbiru élection parce que nak fi nekk xalé yi nañu sénégalais yi xam nañu nan la mbir yi wara doxé té dinañ ci ñëwaat ci kanam mm-hmm. dama leen doon wax né bu nous bëggee réew mi am jàmm nañu jël nit koo xam ne dafa dajale ci euh, mais maanaam kàddu ñi ñu bari wax une personne consensuelle dañu jël koo xam ne politique taxu ko parce que xam nañ ne problème bi suñu Afrique surtout moment yi élection présidentielle surtout et donc bu ñu ku mel le général Jean-Baptiste Tine ñu def ko ministre de l'intérieur euh, yëg-yëg biñ ciy am mooy que ne ñii kat bëgg nañu andi ay coppite yu am solo ci doxalinu réew mi. justement ñu ñëw ci coppite yooyu parce que gis nañu ne quelque part le président nouvellement élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, yëkkati na ay kàddu ci loo xam ne. Euh, daf ko war a def duppee ko ay coppite wala ay réforme ci kàllaamay nasaraan euh, te ci biir réforme yooyu bokk na ci Sénat bi fi nekkoon ñu war ko soppi def seni li nga xam ne également moom moo di euh, daanaka cour constitutionnelle bi foofee également xam naa ne yow ci wàllum yoon da nga ñu fa indil ay leeral lépp également lu aajowoo ci wàllum doxalin ñoo xam ne am na justice boo xam ne day nekk justice bu indépendante ba pare dox liggéeyam sama laaj sax mooy ndax lii fi jiitu ci fànn yooyu dañoo am ay coppite ca laleen war ba finalement mu jar ñu ma leen waa je pense que réew bu dugg ci xàll bu bees maanaam yoon bu bees mais danga cay ànd ak ay coppité yu bees cest à di que coppité euh, du loo xam ne dafay ñëw pour euh, nërmalal forcément li fi nekkoon mais day day day dugal suñu bopp ñun sénégalais dugal si suñu gis-gis ak si suñu yëg-yëg que ne ah lu bees commencé na ci Sénégal xam nga dama leen doon wax ne Sénat bi fi nekk même bu ñu ko doon simmi mbubaam solo laat que beneen mbuba bu tudd seni rek ci ni ko sénégalais di gisee coppite la c'est-à-dire que luñ ci yokk tuuti pour renforcer ay pouvoiram ay ay ay ay ay ay ay ay ay dogolam ay ay ay maninam loolu day nekk loo xam ne day ñëw rek gën a dëgëral démocratie. mais mais ci ci loolu est-ce que Sénat bi nga xam ne tey moom la ñu bëgg a soppi andiwaat ab seni euh, te seni sax am musoon na fi am est-ce que tey jii nii Sénat boobu dafa def loo xam ne jar na ñu war ko mën a soppi dëgg dans la conscience collective gis nañu ne coppite gi war naa mën a andi ak yeesal ci suñu démocratie. ndaxte man dama japp ne Sénat bobu tay dëgg la intérieur mo yoron organiser élection yi par par de là moy nguur gi waaye tax ba ñu voter élection locale opposition bi am doole taxna ñu voter législative opposition bi amaat doole ba dem sax di xëcc ko genn walu député ci assemblée nationale taxna itam bobu Sénat ñu organiser élection yo xamné ya ko wax légui ganaar deewul peut-être lo xamné volontairement ñobéne yeeg njaay yi def xam nga boo koy xool Moussa euh, Sénégal am nañu fi ONEL. 1997. absolument Sénégal am nañu fi euh, direction euh, ministère chargé des élections. Mm-hmm. en 2011. Mm-hmm. Sénégal am nañu fi Sénat. Mm-hmm. xam nga ñaar yi mujje yi ma la wax yépp bi muy am fekk na alternance 2000 bi am. mais réew. day toll foo xam ne day am yëg-yëg ne euh, yokk jot na walla soppi jot na donc bu ñu xoolee Afrique bi ñu wër boo demee Togo da ngay am CENI nga dem Côte d'Ivoire nga am CEI nga dem Bénin nga dem nga am Sénat comme li ñu am actuellement nga dem Mali nga am AIGE nga dem Tchad nga am ANGE nga dem Centrafrique bëgguma wax aan ANE laay wax parce que aan dafa xaw a méngaloo ak mbaam gëm naa ne du loolu mooy rôlam nga dem Niger nga amaat seni nga demaat Burkina façon nga amaat seni donc loolu moo lay wan ne réew mu nekk ak yëg-yëgam sa jamono bu mu toll donc man gëm naa ne coow li fi bëgg a jóg ci Sénat wala seni au Sénégal jaratu ko C'est li na fi aussi c'est ñu andi Sénat. d'accord mais dama ci gis ci général Jean Baptiste intérieur presque dafa wañi ciow ci parce que que ñu fa ñëp d'accord nañ parti politique. Mhm. d'accord na peut-être parti politique bi mu le Sénégal. et donc ragal ya ñu amoon ci processus électoral bi gëm naa ne kii njaaxanaay lay tëddee ñëpp xam nañ ne général Baptiste Baptiste Tine ku xool fa mu jaar ci àddina di nga xam ne du tey lay jaay ngorom wala du tey lay jaay gëm-gëmam ci état. mais ay généraux nekkoon nañu peut-être à presque à pareil service ku ci mel ni général se général Niang également et que. processus yi ba légui ça a toujours été le même processus. xam nga man dama ko mës wax né ministre et c'est là fofu la amé yakar ci lu bees li fi xew parce que fay am lu ñuy wax ay ministères régaliens. oui manam ministère yo xamné si sen taxaway ak sen dolé ken mënu len natablé ak benen ministère. lolu daf ci bokk lu ñuy wax justice maanaam ñiy àtte. Mhm. intérieur. dafa bokk ci lu ñuy wax intérieur ñiy saytu. mais kaaraange réew mi ci biir sa ak ci biti mm-hmm. daf ci am euh, li ñuy wax ministère de la maa mm-hmm. maanaam lépp li xam ne dañu woowee ay poste stratégique mooy poste stratégique absolument te boo yekkee nguur gu yees nga ñëw ci ñetti ministère yu am solo yooyu ministère régalien yi mm-hmm. nga tabb fa ñoo xam ne ñëpp d'accord nañ ci Sénégal ne ñi xamewu ñu leen politique seen statut déjà mais yu leen ñu politique suñu politique et que donc nguur googu am le signal bu muy joxe moy que dafa bëgg wañi wàññi doolay politique ci liggéeyu gouvernement mais bu boba est-ce que mom aussi en tant que autorité bu yes li nga xamné euh, déjà mom modi de son pouvoir régalien mom en tant que président de la république garant etc. Euh, yi ko jox yépp ci ay ay pouvoir est-ce que également pouvoir est du ñëw di contraindre ces autres pouvoirs yi nga wax légui ni que même si il ko xamné il est non politique L'influence influence au président de la république en tant que peut-être chef de l'État non dalal mais au-delà de mom nit projet bi Kenno wa jënd à 58,28%. 54,28%. 54,28% mais dañu bëgg a wàññi président de la république. mënoon na commencer par lolu Wa déet non mënu commencer par lolu xam nga loolu dafa laaj réforme bu mag bu mag dinañ ci ñëw. d'accord daf laaj do xamné du lo xamné ne da nga koy andi coppite yoyu tay wala suba dafa laaj dal laaj waxtaan laaj consensus manam dégo pour ñu mëna am fu ñu jublu té d'accord fa ñu jëm. donc yow tay d'accord nga c'est pas un moment de séduction que nga commencer tout de suite nga bëgg andi ay réformes en commençant par les grandes réformes CENI cour constitutionnelle la justice. non man gëm naa ne même bu doon séduction ñi fallu tay Sénégal xam nañ ne à partir de maintenant depuis 2024, l'élection euh, élection yu mujj ni, ba fa ñu jëm Sénégal kenn mënatu fi président comme ni ko Ablaye Wade comme niko Macky Sall nekké won comme niko Senghor nekké won comme niko Abdou Diouf nekké won don bour don bumi Don bur, don bumi di def buki, buki bi jour bi samba ak buntu bi bii euh, bi samba ak ci buntu ba sax <laughs> loolu mom gëm na nek bo déggé ku melni gi Mari Sagna ci ñom la for wayé déjà mu ngi di artu di leen wax ne nguru taxul ñu tabb leen andi ay ay ay ay tontu ci tar-tar yi nekk ci réew mi ci jafe-jafe askan bi moo tax ñu tabaleen cest à li neex aujourd'hui ci Sénégal mooy ñiy garde moo bari cest à ñiy garde constitution bi ñiy garde réew mi moo bari dangay jël société civile nga dem ci biir Pastef ak ñi ànd ak waa Pastef am na loo xam ne kenn du ko mayeeti kenn ci Sénégal moo tax tabin bi xam nga ñu bari dañ doon wax ne euh, euh, gouvernement bi dafa yé mais dama gëm ni ñi doon wax lolu moy ñi bëgg gouvernement bi pakastalu dama mën na mën na aussi ñi bëgg gouvernement bi ñu téla xam fan la jëm xam nga euh, gouvernement bi mhm. bu tabin bi baaxul woon ñu yàkkamti ko nga duggal ci nit ñoo xam ñetti fan ñent ñu gënal leen dossier yo day plomber l'action gouvernementale manam sen doxalin ci gouvernement day presque nërmelal projet bi yëpp. est que amul benn boo xam ne tàmbali na am na ñuy jiixi jaax ndax amul benn daam bu ñu yóbbu sport que ne boroom këram mu ngi ci biir euh, gouvernement bi loolu ça va être très compliqué. Moussa Youssou Ndour wayoon na fa góor ga ak euh, xale bi ak mbaam mi <laughs> c'est-à-dire que li ma jàng ci sama àddina bi fi ma toll. mooy mooy que ne dogal boo mën a jël dina am ñu mu arrangé. am ñu mu arrangé wul boo mën a jël en tant que njiit dina am ñu mu neex ak ñu mu neexul yow da ngay jël ay dogal méngook li nga gëm ak li nga yaakaar ne ci la askan wi fale mais dama ko doon wax démb xaw ma barka démb ma ne leen ci bi may observer politique gu Sénégal ba tey gouvernement bi ma gis ñu tabb ko euh, bokk na ci ñaar wala ñetti gouvernement yii fi gën bi Sénégal amee indépendance ba tey. soo jëlee ku mel ni Yacine Fall par exemple ñu def ko ministre intégration africaine et des affaires étrangères posture bi baax na. noo dama ne la dama saytu ñoom ñëpp. kenn ku nekk individuellement ku nekk on peut y aller ku nekk sa CV. Eh, mais gis nga ci li yëg-yëg bi ma jëkk am. mooy ñii ku leen okk ñu xuri la. c'est-à-dire que ci ci parcours yi ñu am ci jaar-jaar yi ñu jaar kenn du jóg Sénégal ne ah kii de li ñu ko dénk manu ko ba jox la si exemple bu simple am naa mm-hmm. sama benn jigéen bu baax bu ñuy wax faatu juuf moom la président tabb mu nekk ministre bi yor yépp lu jëm ci géej napp gi ah jën yeeg plage yeeg lépp mm-hmm. mais Fatou Diouf bi ma ko xamee ba tey ci géej rek lay waxtaan c'est-à-dire que tey jii xam nga li fi daa am bu njëkk bi te mu daa ma naqari da ngay gis ñu jël ministre boo xam ne xamul nan lañuy pikiire euh, mala xar ñu jël ko def ko ministère de la santé ñu jël ministre boo xam ne xamul dara ci wàllu décentralisation ñu jël ko yóbbu ko décentralisation c'est-à-dire que lii ñu wane comme firnde mooy que ne aujourd'hui lii anglais yi naan the right man the at right, the right, right place, place. Mm -hmm. l'homme qu'il faut à la, à la place, place qu'il faut Mon ku nekk la nga yello, mais ñu jox la ko euh, pour nga téye ko liggéey ko liggéey bu mucc ayib mais que ferait-on peut-être donc de quelqu'un comme le Rufisquois Abdourahmane Diouf tey jii nii ñu porter ko au niveau donc euh, de l'enseignement supérieur euh, yow xam nga universitaire nga alors que Mom, son aspect wala son son dada c'est l'économie non Abdourahmane Diouf euh, dul woon politique am nay jamono mu bëggoon ñëw université chez Anta Diop de Dakar mais gëm naa ne moment boobu peut-être li mu trop ak nguur gi fi nekkoon moo recrutement am sax un problème mais vous avez expertise bu dee de rek Abdourahmane Diouf rempli condition yep yi. d'ailleurs am na institut bo xamné ne sax. mais non abdourahman euh, euh fañu ko yobbu euh place am la. yelle nak amna dayo bi amna xam-xam bi dañu ñaan yàlla rek mu jappalé ko mais waxna la ci 25 yi ñu teub yep nit man na wax lanen de moy li nga doon wax légui rek lolou lañu walé fait les faits divers ak yooyu nit ñew né no ki jëkkëram li ki kat ndijaayam ak Ousmane Sonko lele Ah, parce que les gens ont dit que la grosse taille donc du gouvernement revient au passif qui plus est également de alors que également c'est un terrain glissant où on peut les sénégalais war nañu mën di moytu. Euh, stigmatisation peut-être réservé à bah. des pans donc de de de terroir li peut-être les responsa les hautes responsabilités allah kulli al mënuñu ko gis nañ fi ay ministre euh, yu fi indi problème yu bari boo jëlee rek ministre de la communication problème yi mu fi andi ci wàllu euh, audiovisuel ci wàllu presse benn ministre mosu ko fi indi parce que dafa politigoon bu mu ëpp mais dama la wax ne man avant may dugg ci beneen considération dama xool ñi seeni jaar-jaar loolu la ñuy wax CV mais gis nga ci CV yi ma gis ku nekk la ñu ko dénk boo jëlee défense nga jox ko ku mel ni maam Biram jóg mais ñëpp dañu xam ne kooku chaise ba mu ñu ko jox dara koy mate nga jël intérieur nga jox ko Jean Baptiste Tine amul kenn kuy jóg di ko laam-laamee à part wax waxu dof yi ma fi dégg ci réew mi ñuy wax waxu euh, ngëmeel chrétien musulman mais loolu heureusement que ay nit yu isolé la ak kan mooy natable ne Et venant d'ailleurs d'un journaliste. Waouh, c'est regrettable. Nous parce que Sénégal. D'ailleurs, il a présenté ses excuses. Mais hein. heureusement. C'est un humain. Mais le président, le aussi, premier ça, président vous le en la du terre. Sénégal. Mm -hmm. Chrétien, là Bien sûr. Quand moi que j'appelais won ñom sommes Fallou. Ouais. Quand moi que j'appelais won Serigne Sénégal. Sénégal Yalla daf ko soutural débat D'ailleurs, autant on peut dire la valeur n'attend pas le nom d'année, comme on peut le dire également pour les confessions religieuses. N'importe qui peut être à la J'ai travaillé avec beaucoup de chrétiens. Oui de catholiques, man, je leur rends hommage. Absolument. Nous, rendons d'ailleurs hommage à toute la communauté, mais également, c'est une carême. Mais c'est une carême, effectivement. Mais Sénégal. Mais pour continuer. Mhm. Ousmane Diagne quand moy la ministre de la justice le te fañu ko yobbu du place am kan. loolu mom yow war nga ñu ci mëna wax lu ñu mais non bo xolé parcours am ak taxawayam surtout parce que man nga nek magistrat amna magistrat yu fi nek yo xamné lu leen Macky Sall santé won def nañ ko ah Macky magistrat yu xamné biñ fi nekké lu leen Ablaye Wade santé won def nañ ko wala Abdou mais Ousmane Diagne li ñu koy sédel moy euh, dignité posture républicaine looloo tax ñu mettroon un peu au frigo sax. bo nekkoon na fi propre.

mais lima lima que la contre président Macky Sall bu ko Ousmane Sonko dina ko qui vivra verra professeur dañu également ci réforme euh, cour constitutionnelle ak justice Mais leen wara réformer lu xew. pourtant justice bi permettre procès ñi au pouvoir te à l'opposition euh, il fut un temps récent aujourd'hui tay ñom nañu ci euh, ay procès yoo d'ailleurs ils ont été véritablement donc euh, ils sont sortis saufs amna sax d'ailleurs bo xamné mo ci gëna mo moi ci gëna moy euh justice bo xamné dem nga dem nga até le cas Ousmane Sonko ak Adji Sarr la fa am comme décision peut-être quelque part ak moom ak mambay Niang rek entre autres mais gis nañu né également ñu ci bëri ci ñoo xamné ci ñoom defoon nañu ay lui li amoon Jigenshor en tant que maire de Jigenshor Mom Ousmane Sonko et est-ce que justice boobu tey jii ak cour constitutionnelle dañ leen war est-ce que def nañ seen gay convenablement. damay commencer ci justice bi bu nous commencer sur justice bi doo le panier bi yépp nga ne da parce que am na mango yu bon. kon musiba kon dina am justice waaw. Mhm. justice euh, ay nit de valeur. ay ay femme de valeur ay nit yu am dignité yu fonk seen liggéey di ko doxal ca na mu waree mais def naa ne ñoo fa ëpp sax buñ koy xool waaye am na ñoo xam ne xaw nañu xajamal euh, mbir mi si seen taxawaay parce que gis nañ ne am na moment boo xam ne kenn mënu ko natable ci Sénégal bi euh, nguuru président Macky Sall bëggee baral mbir yi gis nañ ne justice àtte na ci anam yo xamné ne kenn mësu ko gis bi justice amé ba tay <laughs> te gis nañu ay sabasi gis nañu même au niveau de Dakar ay juge yu am taxawaay jóg ne attention ni ngeen ràjjee Ousmane Sonko ci liste électorale yi baxul délo lay ka amna am na ñoo xam ñu ngi won ci li ñuy wax contumace ñuy wër ko xamné ne ñu ngi ni seeni bëss bët ñu ne gisunu ko donc je veux dire que am quand même gagne gagne y yu ay acteurs de la justice andi justice et moi je pense que buñuy a wax réforme de la justice si dégloo wa justice rek dinañ la wax ne ñom réformer. la qu'est-ce qui peut être à l'origine de la justice généralement nga xamné euh, justice texte la te texte dañuy gis y day am problème d'interprétation interprétation yow wax nga ko légui né nañu ñom tay ñuy wut conti euh, le contexte gisoon nañ ko si sen ay beut dañu préférer ne gisunu ko est-ce que lolu c'est lié à ce que l'on appelle le phénomène d'interprétation des textes de loi non lolu du interprétation lolu mauvaise foi <laughs> attention ah oui leeralal nga ma jàkkaarloog yow ni asaman baa ngi nii la damay wër Moussa Pouy <laughs> alors que man ak yow ñu ngi tok di débat xam nga lolu du interprétation c'est de la mauvaise foi et souvent la mauvaise foi ay acteurs politiques ñokoy def mais dama pour mu ñëwaat ci réforme bi ngay wax ci justice ñëpp d'accord nañ né le conseil supérieur de la magistrature dañu ko refermé. président de la république ak ministre de la justice Le président de la république le président du conseil. xam ministre de la justice le vice président Nous xam nga ñooñu xam nañ ne ba jamono yu ak politique bo xamné dafa am doole trop sen la preuve li fi ak le le le euh, euh, tab biñu tab le président. Abdoulaye Ndiaye. ah bi Macky Sall décelé euh, euh, quatre jours quatre jours oui en principe. xam nga lolu té du du lo rek de. Mhm. dama ko don xoolaat mané le président Macky Sall. jël na le président Macky Sall jël loi bu concerné gendarmerie décret parce que loi bi 1984 la won wala 1984 ba 2024 ba mu dess ñenti fan parce que loi bobu mo ne dañu décret de xamné day jëmmal euh, gendarmerie ci biir armée ñu régler problème de protocole d'organisation, de fonctionnement loolu ñepp d'accord nañ ci mais 1984 yow ñu jox la nguur 2012 nga tok ba 11 ans 11 mois 25 jours wala 26 mu dess 4 jours ngay soor décret bobu est-il trop tard pour pour bien faire. non dafa am. parce que adage bi lolou la waaye. non xam nga bo amé ku la wara woutou. oui Té bi mu koy jël fekk nañu fal. Basiru Diomaye Fay. mais lui était était en en en service. en en d'accord na ak yow. c'est-à-dire deux. ñaari niveau laay waxee. Mhm. niveau bu njëkk bi. moy du lepp lu la may ngay jël dafa am fo xamné ne xel mo fay yegg. kenn du ñëdd bool. kenn du ñëdd bool surtout xam nga euh, moo tax ma ne ci coppite yu bees yi ñëw war nañu ut nu ñu nu ñu aaree mbir moomu ba président de la république bu desee trois mois wala quatre mois wala cinq du mën a indi ti coppite yu mag yooyu yi xam ne c'est pas nécessaire tout suite lu mën a xaar onze ans onze mois war a mën a xaar vingt cinq jours vingt six war na mën a xaar mais une semaine ou deux bu ñu waxee waxeelee Alors, je me te relancé rek professeur Tayini, quelles seront les réformes que le juriste que vous êtes le constitutionnaliste que vous êtes ngeen lui proposer parce quau delà de l'acte politique bi nga avez Macky Sall daf ko poser mu un précédent politique parce qu'on a l'impression que c'est inédit. mais non du Macky Sall rek dama la assemblée nationale bi mu a 4 jours 5 woté nañ fi réunion bu tiital sénégalais yépp xam nga lañ doon lañ loi bu am ordonnance bu en 1959 ñu bayyi batay 1959 batay on est presque à 65 ans de vie de l'ordonnance ñu bayyi ba mu dess ñenti fan ñu woté woté bu gaaw mais nous ben loi bo xamné ne dafa jublu ci ñom si seni avantage ak si seni pension de retraite xam nga lolu xel aussi man nako dakh nga ni président Macky Sall andi ay coppite ci ci CMU bi ci RTS bi man waxna naa lolu ce sont certainement ay mesures yu baax. même amoon na sax ay nominations ci conseil économique social. Con conseil économique et social bi sax. man nañ ko xaw a comprendre tuuti parce que moo di giroo mandaam na lu ëpp juróomi weer kenn toppatoo ko ba mu des 4 jours 5 président Macky Sall mel dañ a pas de conseil économique social et environnemental té si sama yakar conseil économique social et environnemental bokk na ci luñu wara tabal a mais mu jël ay mesures yo xamné ne kenn mënu ko comprendre la preuve bi ñuy interroger Malal Tal, comme nouveau membre moom nee na moom yëgul sax né tab nañ ko conseil économique social et environnemental. est-ce que ça se fait par consultance avant nomination. wala bah ça peut se faire également nit ku ñuy nommé légalité nga ñu jékki rek bété la ko aussi. Euh, Moussa gisuma ku ñuy nommé te duñ la oo laaj la ndax bëgg nga wala bëggoo parce que nag c'est pas parce que président de la république moo la nommé que da nga am obligation pour des fa tu n'as aucune obligation c'est-à-dire que. mais aussi am nga am nga également la liberté nga décliner l'offre. waaw non loolu xam nga ku nekk ak na ngay tojee sa bopp janaa mais dama la bëgg expliquer que ne boo gisee coppite yi fi am ci une semaine ci Sénégal mais bu Sénégal administration doon liggéey noonu ak li tubaab di wax célérité Manam baral bu mel noonu mais ñaati loi n'y nekk en souffrance ñaati loi la ñu déposé assemblée nationale kenn laalu ko loi yoo xam ne dafa jóge ci un député yu mel ni assemblée nationale moo lay wan ci aspect boobu kenn mënu ci génne euh, euh, Walu politique ku que daal yaa ngi doon avant ñii di ñëw nan ngay gën sa nous ngay gën a yokkee say en réalité globalement le plus la. est-ce que c'est pas de bonne guerre si l'on sait que euh, Boudara yeesee ku des war qui mën a yeeslu ngir mën a bokk ci ñiy doxal. xam nga man ci sama gis-gis dossier yooyu comme que mu ngi en préparation le président de la république a une passation de pouvoir dafa parce que l'État est une continuité C'est ce que wax. waaw dafa l'État bu daggul fen la donc état day préparer dossier yooyu yëpp mais dañ les hommes passent les institutions demeurent bu bu Macky Sall aéroport bi mu bi mu mais du moom moo commencé won autoroute bi mu yok ni du moom moo commencé won Ablaye Wade moko commencé won avant Ablaye Wade lepp lo gis ci défilé militaire beeg yep li ci ëpp Senghor hymne national beeg yep mais moko tabax. wa mais légui kon pourquoi est-ce que tey fi Macky Sall jëlee dogal yu mujj yoyu président Bassir Diomaye Faye mu rufoo relancer son acte ses activités au lieu kon mu ñëw def par exemple ay euh, dige ay réformes ba paré def également casser li nga xamné mom modi wala bon mu annuler nga xamné moy les derniers. décrets xam nga ro bobu boobu. loolu wax retrait en droit du sa abrogation mais rocci bobu mu rocci te rocci bi attention nañ ci andak prudence ak dal parce que ba fi may waxee ak yow ni man gisuma décret président de la république Bassirou Diomaye fay bu rocci dogal yoyu président Macky Sall te xam nga fi nous sommes en droit il faut que. mais mais kon d'où d'où vient ce bruit. qui fait que ñaati bruit ñofi am Sénégal bruit yo xamné ne day nek ngalaw luy naw di dem waxuma ne amul dama ne ce plateau. c'est pas encore publié au journal officiel décret bi ne la décret mais mais boba ça devient un précédent dangereux. parce qu'aujourd'hui c'est relayé même dans les grands plateaux les gens en parlent. on mais, parle c'est relayé par qui c'est relayé par vous. vous de la presse on ne on peut pas créer le vent on l'entend et on le repousse. Euh, personne ne peut créer euh, du vent euh, Moussa. oui bi judo Sénégal ba

Euh, yu yu yu sori ñu ngi may wax ne amatu amagul benn notification notification ci droit. oui mooy bata surtout d'ailleurs ñi nga xam ne ñoom la concerne. ñu nommé les nominés mooy bata ba ñu lay jébbal. ne la te ci foofu la say droit di soro a commencer courir. Mhm. c'est-à-dire que bu ñu ko joxulee bataaxal. bu fekkee ne euh, prêter gul serment parce que attention le euh, les magistrats prêtent serment et prestation de serment du président de la République au Sénégal médecin yi dañuy prêter serment. les membres du conseil constitutionnel dañuy prêter serment. mais donc yu yëpp kenn gisagu ci dara ah. mhm. c'est-à-dire que nous avons rumba ndax na notification ndax avons nañ ko bataaxal bi ko dëggal na yow la premier président euh, cour suprême gisaguñu fu mu tàllale ba loxom mu waat ne voilà pour ñu installer parce que Bassirou Diomaye Faye euh, boo ko tay ci mom te pourtant mo nek ci fonction bi gëna mag ci Sénégal. oui ñëpp d' accord tant que yëkkatul loxaam waat mooy prestation de serment bi nekkagul président de la République du Sénégal. te il l'a fait le 2 avril. ba le 2 avril. ba bara mu yëkkati loxo bi di wat président de la euh, Bassirou Diomaye Faye nekkagul won président de la République du Sénégal mo war na droit parce que le 2 au moment de la de nu mu de de de l'investiture, la nous d'ailleurs euh, le score du scrutin. mais faut faire un conseil constitutionnel Des ñëw de publiquement oui résultat yi am pour Firndel ne Bassirou Faye gagné dès le premier tour à 54,28% mais tant que baax na neex mais tant que yëkkatiwul waat kenn mënu ko installé ci ay fonction présidentielle moo tax ma ne la ci wàllu mbir mi droit dafa am nu muy doxee mhm. bu fekkee ne notifié guñu ko jébbalu guñu ko bataaxal bu fekkee ne mais prêté gul serment mais dara amagu fa en réalité et donc comme que gisaguñu décret war nañ ci gën a xaw a bu décret génnee parce que problème bi muy andi loolu. xam nga. Euh, problème lay andi. dafa am benn juriste bu bu doon wax ne parce que jël décision quelque part nga jël ko bu pare un juriste wax ma ne ban problème lay andi ça me ça me non problème xam nga. Euh, sañu loo jël loo xam à l'entame de ton de ton acte en tant que président de la république des jours après coow. xam nga dafa am loo xam ne ci droit parce que tout le droit ne se trouve pas dans les textes. d'accord dafa am lu ñuy wax la coutume. dafa am le gentleman agreement l'élégance c'est-à-dire que président euh, euh, premier président cour suprême du magistrat booy jël rek tribunal bu premier président cour suprême boo xoolee ay sañ-sañam ak li mu mën def am importance si justice ni muy fonctionner mais bo xaaree ba mu des ñeenti fan ci sa mandat pour man war nga mën ki lay bu moi apprécié. moi li mu def rek. li nga dossier ay dossier le corona waroon mais c'est def ay recommandations bàyyi ko ak sago moom mu xool ndax dafa war a. bi pôle judiciaire financier bi. mais tabb bobo day day andi coow day andi problème parce que xam nga pôle judiciaire financier bi bokk na ci. mais kuréel yu bees yi ñu tabb yi ci nara a ëpp solo. luy seen rôle bu boobaa. xam nga ñoñu bu fekke ne dañuy dañuy ñi yor xaalisu état surtout finance publique yi. oui ñi xamné ne ñoo koy ñoo si la ñuy liggéeyee. Mhm. Euh, ñooñu ñooy xool. conformité ak légalité. xol nak ndax yorin bi baxna wala baxul xam nga enjeu yi dafa bari surtout pour nguur gi génné mhm. parce que ñu bari ñu ngi leen di tudd ci ay dossier yo xamné amna ay lënt lënt. ce n'est pas une fuite en avant pour pour Macky Sall par rapport ak ñi muy. Ah, bàyyi derrière donc lan moo tax mu yàkkamti point d'interrogation voilà pour moi le pôle judiciaire financier du moom moo Tab. c'est-à-dire que président buy aussi il faut que la preuve entraîneur bu Bouignon bu ñëw ci équipe souvent lan lay qui, def danaan qui, ak kii ak kii ak kële mënuma liggéey ak ñoom na leen équipe bi jaay ñële ak ñële ak ñële damay dem jëli pour sama équipe Ba. mais mënoo jël yow. mais entraîneur bi passé aussi mën recruter au dernier moment un joueur bon, peut-être que le ñëw éventuellement. Le koy souvent bu ñëwé te bëgg ko ñaati jour lañ fi recruter matul 1 an wala six mois entraîneur bu bees bi ñëw daxalet c'est li may bëgg wax pour revenir au débat moy que ne pour man euh, euh, premier président cour suprême du tabbin bu ndaw ñi xamné ño wara war pôle judiciaire et financier bi mais du tabbin yu ndaw donc benn tukat bu mag daf doon wax né et presque là, nous sommes dans les, les, les affaires courantes. manam ara bu nguur tolloo fenn li nga wara def moy di doxal li xamné ne chaque jour dañ koy soxla man par exemple qui wara signer sama signature euh, sama sama sama salaire mais duma har Bassirou jomay fay ñew c'est-à-dire que lolu lañ wax les actes quotidiens journaliers maanaam ni rew di doxi tous les jours pension de retraite yi dañ ko wara fay mais lepp lo xam ne fay andi ciopité te li ñuy wax ordonnancement juridique lepp lo day andi ay ciopité yu reuy yu mak lolu am nañu yaqin ne président de la république bi génné war na mën a ay dossier mais daf koy jébbal rek président de la république bi waja tok pour mom bu ñëwé ci ak dal ak ba kenn bu tay ak xel mu tay mu mëna xol kan lay jël par rapport à tel poste ou par rapport à tel autre eh, eh, le président Macky Sall et c'est ça l'ironie de l'histoire Faut faut l'histoire de wane Bopam. en 2012 en décembre 2012 le président Abdoulaye a fait une nomination yoo xam dafa nom askan bi dafa généraux Madame fukki généraux ak la nommé en conseil des ministres en janvier on n'était pas loin de l'élection présidentielle de février 2012 bi bi andi coppite ci euh, euh, bopp réew Et et président Macky Sall daf ko le won et parce que daf ko dugaloon dans une situation inconfortable à un moment donné dafa waroon changer de général si le président Abdoulaye Wade andi won ay coppite si chef de village yeeg yëpp Il ah, di wax ay salaire fi parce que en réalité moment bobu xam nga ci élection lañu jëm té souvent nguur gi wara euh, gi te am yaakaar ne peut-être dinañ ko fi wuutu day def kent lay kàntanam mais pour meuna gëna gën et donc loolu lañ wax peut-être corruption de l'électorat parce que bo baye ba mu dess quelques semaines nga ne da ngay outal ñi ay salaire da ngay jox ñi ay auto da ngay jox ñi ay fital da ngay jox ñi ay pouvoir mais loolu ñep xam nañ ne du lo xam ne xel man nako est-ce que dresser c'est dresser les uns contre les autres ñi fi tok te nek dans l'administration face à un nouvel un nouvel état. mais en réalité day andi day andi. Euh, xiro ak ngayo bu amul benn njariñ mhm. man gëm naa ne euh, Abdoulaye Ndiaye fa ñu ko tek ay compétences mom kenn duko lam lamé mais peut-être amna yeneeni aspect yo xamné man na gêner le président de la république bu bes bi mhm. mais dañu ko wara bayyi ak dal gu mat seuk pour mu meuna tab ci poste yi gëna am solo ci réew mi pour expliquer encore kané pour man euh, ndaw réew yi ñu tab ministre dañu war a yokkaat li leen di aar te li leen di aar bokk na ci par exemple mais ñu def prestation de serment officiellement et publiquement ñu am benn code d'éthique et d'honneur boo xam ne dañu koy xaatim pour wax ne par exemple léegi amatul ministre boo xam ne man nga nekk par exemple man nga nekk ci làmb ji ñu naan ministre drapeau du ministre des sports yooyu moo tardel réew mi en réalité c'est-à-dire que liy divertir ministre yi gouvernement bi dafa bari te lépp ci caaxaan la jëm ak folklore. donc alors justement nomination yi nga xam ne euh, euh, Bassirou Diomaye Faye def na ko installer un un nouveau gouvernement euh, li nga xam ne également moom moo di préalable politique bi nga xam ne moo ko war a précéder yaa ngi wax léegi ci tànneef bi ñu xool bien le profilage gis nañu né également yow da nga gis né dina bokku ci ay coppite ëllëg ba duñu fi nekkati également sous la présidence d'honneur de ah, ñu jël ministre yi woo leen ci ay mbumbaay yo xamné day tax peut-être ñuy am ay euh, détournement seen objectif waye waaye la nañ ko taayu gouvernement bi peut-être am na dix de moins que sous Macky Sall ah, par rapport ak li nga xamné mom la doon mais est-ce que tay jii ni li ñu def ñoom ba tànn vingt cinq ba pare toppal ci ay secrétaire d'État yoo xam ne tey ñoom ñoo war a ñëw euh, mottali euh, donc euh, l'ossature du gouvernement est-ce que tey jii nii apprécia ban appréciation du mooy ngay am par rapport ak la taille de ce gouvernement. li ñu ciy jëkk wax mooy ñoom ñu ngi def li ñu man pour tënku metti na trop nag ci li charte des assises nationales waxoon xam nga président Macky Sall avant ñu di ko fal. daf ñu jaayoon que ne gouvernement moom du dépasser vingt cinq ministre mais gis nañ li ci xew à la suite mais pour dire simplement que euh, gouvernement bu élastique trop bu gudd trop boo xam ne kenn xamatul ñaata la mais mën na am impact bu négatif maanaam njeexital boo xam ne du bi ñu bëgg ci liggéeyu gouvernement bi bi Sénégal amee ba tey surtout depuis lu ñu fi gis ci jamonoy Ablaye Wade de tey mais gouvernement bi bokk na ci yi ci gëna touti et li li tax mbir mi xaw doy war Moussa bo jëlé avion nga génne touti parce que bokay dox day day xaw compliqué nga dem par exemple fu melni États-Unis États-Unis xam nga ñom ñu ngi ci ay 341 millions d'habitants Sénégal 18 millions la de dama koy fatali mais boo les États-Unis xam nga ñaati ministre là. Si am quinze bo jëlé ministre yoyu nga ci vice présidente bi gouvernement bi réellement 6 personnes qui sont constituer après nak amna ño xamné si rang ak poste yu ñuy euh, mais là aussi c'est en fonction du régime en place. mais non dama la bëgg expliquer combien parfois en Afrique euh, nous sommes dans des contradictions n'ai que faire partie des. ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ci àddina nga bëgg am taxawaay boo xam ne dafa mel ni yow bokk nga ci juróom yi fi ëpp alal États-Unis ñëpp kenn laam-laameewul ne bokk na bu dul réew mi gën a jiitu ci àddina ci ci doole ak kantan ci économie ci armée ak lépp en tout cas ñi ci des dañuy tegante mbagg peut-être ak moom mais boo demee foofu fukk ak juróom benn

est-ce que d'ailleurs ma dougal fofu ben ben une question est-ce que ñom ñi ñuy wowe ay secrétaire d'État du ñom ñoy véritablement donc les les plus les plus en en action par rapport à à l'intervention du du du du gouvernement. la étatique puisque puisque le ministre souvent xam nañu que fi au Sénégal fi en Afrique le poste de ministre est lié souvent véritablement donc à la politique du gouvernement. non mais ça on peut dire que lol mais États-Unis comme je te dis l'unité ñuy ministre Sénégal mon secrétaire d'État aux États-Unis ñooñu fukk fait juróom lañu boo et là c'est l'administration secrétaire d'État. mais secrétaire d'État le gouvernement bi rek boo demee fu ni Chine xoolal Chine mu toll un milliard quatre millions c'est-à-dire que presque di nga jël Sénégal juróom fuk, juróom fuk ak ñaari yoon toftol, toll pour nga soor a mën a am Sénégal cest à mën nga jël Sénégal di ko wàññi benn ñaar ñett bu mu nekk tollu juróom ñaari fukk ak juróom-ñeent pour nga soor a dab Chine ci maanaam dayoo euh, askanam mais boo demee Chine gouvernement am boo nattee lépp boo jëlee président bi jël premier ministre bi jël euh, vice président bi jël vice ministre yi nga jël ministre yi ñépp ëpp ñu romb ñu fanweer ak juróom-ñaar. te xam nga ne dooley Chine du dooley Sénégal xam nga ne dooley États-Unis du dooley Sénégal même France góor góorgóorlu nañu parce que ñu ci France rek lañ doon roy ci lépp mais gouvernement Attal bu bees bii xam nga ñaati ministre la mais en réalité fukk ak benn ministre la de plein exercice mun am ministère yu dëgër yi ñu tofsal si ñetti euh, ministre délégué auprès de délégué ça veut dire que ñoom France Il Espagne boo fa mais là on est à 25 plus 5, les secrétaires d'État. secrétaire d'État pourquoi pourquoi non secrétaire d'État pour man qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut de grands ministères il nous faut de grands ministères mais avec des de bonnes directions c'est-à-dire que des directeurs ils ont ne ku nekk la xam nga ñuy jeunesse ah yor loisir. alors que lolu souvent dañ koy détaché. non xam nga lu tax la daa ko gën a détaché mais pour mën joxé ay poste bo bo gisé mais aussi pour mën ñongal ñoŋal liggéey. parce que yow boo yoré sous sa responsabilité trois à quatre. Eh, trois à quatre postes ministériels ça va être compliqué pour faire le travail ba tey Moussa est-ce que euh, taille gouvernement bi déterminer na notre existence je ne le pense pas. c'est-à-dire que. cela va de soi aussi parce que on a vu que cohérence dama am ay nit yu liggéey ci sphère ministérielle yeeg fanen ak fanen mais souvent bu ñu ñëwee xam nga lu may joytu les doublons ñu ne mo parfois dañuy tassé réunion mais direction bu nekk wala ministère bu nekk day xëcc ko la même chose ça veut dire que répartition des services yi baaxul ça veut dire que ministre lu bari problème yi gën bari dama ne la réew mu nekk ci 25e position maanaam ñaar fukk ak juróom ci réew yi gën a ci àddina réew bo xamné sa population matagul 20 millions mais réew bobu buñu xolé li xew ci àddina fep té ñoñu ñoñuy andil aide au développement bi ñoñu mo ñoñu ñoñu dimbali buñu amé ay jafé jafé ñoñu amul presque kenn ku ci dépassé 20 ministres. d'accord lolu jangat la wara doon. alors au-delà de la de la taille de de de ce gouvernement les profils euh, am na koo xam sax euh, je pense bon je préfère d'ailleurs ne pas en parler alors gis nañu né Gente Ousmane Sonko le mentor donc politique du président Diomaye il est devenu premier ministre quelque temps après euh, l'élection de du Bassirou Diomaye Faye est-ce qu'il n'y aura pas de dualité entre un président de la République et celui qui plus est est son mentor politique Tenyom une appartenance politique qui dirait Diomaye président euh, pour être élu que le un ex pastif Tejini n'est premier ministre duñu xëccoo tey seen si wàllu doxalin ci wàllu nekkin et est-ce que également du am influence trop ci du gouvernement bu loolu Moussa dafa si wala du dem ndax dina am problème du am problème. Mhm. c'est-à-dire que dama ne seul l'avenir nous dira euh, am. mooy que ne ñoom ñaar gëm naa ne ku nekk natt na sas ak responsabilité bi ngàlloo ci say mbagg c'est-à-dire que euh, ñoom ñaar peut-être du ma ne ay jafe-jafe du masa du masa ñàkk et lii neex ci mbir mi mooy Ousmane Sonko boo ko dégloo ca Mbour maa ngi soor a dégg ci discours Il y candidat présidentiel président de la république bi ñu mais que ça peut être aussi un bon en réalité même si c'est pas dans les textes de fait le président Diomaye Faye est face à des contre-pouvoirs mais réels Il y a mu ngi même ci biir c'est-à-dire que boo koy Ousmane Sonko tay amna lo xamne du ko massa nangul Bassirou jomay fay lu mel lan lamu mu nangulul woon Macky Sall c'est-à-dire que ci doxalinu état bi xam nga kéro deg naa ko mu nan est-ce que mom la wara don kuy nangu wala ñak nangu doxalin puisque l'on sait que aujourd'hui c'est le peuple qui a décidé de choisir xam nga mbiru Ousmane Sonko ak Basiru jomay dafa euh, nga loolu bari science politique li ñuy wax science politique c'est-à-dire histoire constitutionnelle qui a dit c'est peut-être l'une des rares fois que président de la république fi nous ko parce que rôle Ousmane Sonko ci palinu euh, mais du on aurait pu se poser la question et se dire est-ce que s'il n'y avait pas Ousmane Sonko Yuri Bassirou Bassirou Diomaye Faye man personnellement je ne le pense pas moo tax ma ne c'est ñom ñoy xool parce que man gëm naa ne nit mënul def xex bu melni pendant fukki ak ak li ñu daj lépp surtout mom Ousmane Sonko ñu ñëw ba fi diko jënd ak seen bakken projet bi xam nga Ousmane Sonko né mën na nek premier ministre pour man ba keraa Basirou Bassirou Diomaye Faye di jee ah oui ah explique-nous parce que là aussi de mémoire qui ko fii à ah, part peut-être ah, à part oui à part peut-être quelqu'un comme comme Abdou Diouf qui a été sous Senghor presque son son premier ministre Bobby Moukoué mais après Abdou Diouf euh, Habib Habib Abib Habib 91 98 mon nekkoon premier ministre sept ans le mandat tay ñaati at la Boun Abdallah John, on aurait peut-être pu commencer par lui lui rendre hommage euh, c'est-à-dire que euh, ñaanal yalla waaw waaw mu def yërmande ci moom. parce que yàlla. andi na waram bay na waaram. dañuy def foofu mea culpa parce que c'est vrai que xel day fattu loolu la ñu waroon xel day fattu ñu incliné wu. devant sa devant sa dépouille mortelle. di ko jaale Sénégal ak njabootam. surtout waaw c'est une grosse perte. waaw c'est une grosse perte def na lu mu man comme disait le général Romain de retour de guerre général ba ba mu jógee guerre troupe yi am yu manqué amna lu matul fi amna arme yu mu ñak gaay di bëgg ko sonal ak wax mu ne j'ai fait ce que je pouvais et peut-être que Bassirou Diomaye Fay ak Sonko ce qui sera intéressant au au crépuscule de leurs cinq ans bu démé ba jant bi euh, di fank li ñuy xaar ci ñom moy ñu rek pour ñu mëna xol Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire en toute honnêteté. parce que le, le rendu on en a besoin si l'on sait que l'IFIJI tout gis nañu fi mu mujjee yow ya ko wax léegi ku ci mel comme euh, bun Abdallah Dionne paix à son âme bokk na si ñi xam señ sañ nañ taxaw ne def nañu lu ñu mën. Mm-hmm. mais ñi on les attend pas parce que ñom également du du temps de leur euh, de leur opposition ils ont promis monts et merveilles d'ailleurs dañu dugg si rek commencé di wax mbirum temps. il nous faut que deux ans et euh, Ousmane Sonko de vive voix di wax né jafé jafé aduna entre autres C'est vouloir veut dire que aujourd'hui est-ce que les sénégalais du nous toog di Yakamti ñoo xam dañu nar le pas avant nous relancer puisqu'ils puisque ils ont qu'un mandat de 5 ans pour dérouler. Nous avons souvent dit souvent Rome ne s'est pas faite. en un jour en un jour. boo ko nattee ci yow natt man mais avec des si aussi on peut mettre Paris dans une bouteille. non vide. lii du si. lii am c'est-à-dire que Moussa Pouye tey ak Moussa Pouye il y a 40 ans Nous xam nañ y a une évolution c'est valable pour yow c'est valable pour man c'est valable pour ce pays xoolal réew Biko bi ko Ablaye Wade commencé en 2000 avant lui Abdou Diouf Senghor ba tey ku ne li fi am tey dafa nekk euh, barkeb Macky Sall rek c'est que tu ne comprends pas ce qu'est l'État ñëpp xam ne ñii liñ len di laaj du loo xam ne dañ koy def si ñaari fan ñetti fan ñeenti weer juróomi weer. la cherté de la vie. wàññi ah ah le coup. panier de la ménagère ñu commencé ko sentir entre autres

gouvernement ils ont mis un gouvernement en place. le 2 avril. Langa nga président de la république. oui. à partir du 3. mon secrétaire euh, général de la présidence. oui les les. directeur de cabinet du président de euh, oui premier ministre là à mon gouvernement bu oui bu donc donc lundi ils peuvent commencer à. à mais ils sont ils n'attendent pas lundi. tey bo boo le président de la république. mais mu nga mu nga mu nga non dimanche c'est pour la grâce dimanche on pas non président de la république amul grâce au regard des urgences président de la république il ne fiñ ñu ni do ko ay nelawam na doyati. alors di quoi, je ne mën na jël. décision yu forte le président ne euh, président Bassirou Diomaye Faye fas yéene na ko Moi, mhm. euh, mooy corruption c'est l'homme vraiment j'ai bien aimé mais la corruption beaucoup boo ko Il est rek sur les sphères de l'État la corruption est même dans la rue comment est-ce que président de la République peut dans son dans sa volonté de lutter contre la euh, la corruption pour prétendre à un Sénégal prospère. Euh, proposer des yi def ay dénonciations buñu paré ñepp ñi nga xamné dañu dañoo ay prête d'entreprise sous le couvert de bu ko défé ñu mën leen a neexal après ñu mën leen ñu mën jël lolu délo delloowaat ko ci ci ci gafay nguur gi. non ñun ñepp d'accord nañ né Sénégal. ça risque pas d'être très compliqué pour ñi doon ànd. déedéet and ak professeur tay mu jox ma prête-nom say ma dénoncé ko après suba. non non non wa waa bi dépassé na fofu c'est-à-dire que premier constat bi bi nga def moy bu baax bi ñun ñepp d'accord nañ né Sénégal réew mi guerre gi yegg na foo xam ne dafa jéggi dayo te mënatul continuer il faut que ñu ut ci saafara mais ci li ma gëm président Bassirou Diomaye fay mën na jël mesure yoo xam ne mais mesure yooyu du nekk ay mesure yoo xam ne c'est personnel mais comme il a dit c'est la rupture systémique en réalité jëlal sénégalais boo bëgg fii yóbbu ko tey États-Unis wala nga yóbbu ko France wala nga yóbbu ko Suisse boo demee doo ko xàmmee xam nga lan moo tax système ba muy fekki la man mi bi ma nekkee France di jàng à Montpellier amoon naa contravention si sama auto. mais Russie du du du exemple de démocratie. non wax ma Russie de la Suisse. ah Suisse d'accord. ba ñu demee ba ma nekkee France nekkee étudiant bu ndaw amoon naa auto oto bi am PV contravention ma dem naa ba toog bay ba yaataa yumbe def ne mais gars yi fàtte nañu ma dama jékki-jékki rek rappel ñoom dañ lay rappel gars yi woo ma ne ma mm. Ameth Ndiaye ma ne waaw ñu ne ma yow la ñuy xaar pour nga ñëw fay contravention waaw loolu loo amel nguur gi la c'est-à-dire que il y a pas de mauvais il y a pas de grand peuple mm. et il y a pas de petit peuple y a y a que de grands dirigeants c'est-à-dire que boo jëlee c'est parce que ce sont les dirigeants ñooy wane yoon wi ñooy former seen askan gis nga Turquie yi ñuy wax ni il a fallu que ñu am président bu tudd Atatürk bi mu ñëwé la Turquie moderne le rôle du général de Gaulle dans la France d'aujourd'hui France moderne bi ñu xam mais c'est un rôle mais bon xam ne kenn commencé xamul c'est-à-dire que l'autre disait la confiance vient d'en bas et le pouvoir d'en haut bëgg nga di les États-Unis hein mais là aussi on a vu ce que Trump a fait le Capitole ñu que, après nga dem foofu jaxase mais Moussa je suis content que ils ne soient pas, ils sont pas si, illustrés que, ça. Hein. mais je suis content que content, soit un ci exemple bi. oui. gis nga crise bi a euh, traversée avec Trump. oui bu dul woon réew réew mu am Si la démocratie am taxaw Amérique mën na fa jóge sax na se donc on peut on peut avoir le, même regard sur un Sénégal où en en 21. on a connu presque ce qui est passé euh, le M23, on s'en souvient et que également à quelques quelques moments de de l'élection on également ay remou on a pu voter et choisir un président de la république. Moi, yow ci. c'est très bien. problème parce que citer les autres comme s'ils étaient les meilleures démocraties alors que notre petit Sénégal fait partie aujourd'hui des peuples les plus mûrs le peuple tu me parles de peuple moi je te parle de dirigeants. mais les, eh, dirigeants eh, sont dans l'ensemble. j'ai l'impression parfois que le peuple sénégalais est en avance sur ses dirigeants. Et je ne suis pas sûr que euh, fay souvent narbe. j'ai l'impression que en 2000 les peuple bi wax Ablaye ak de def en 2012 les Macky le la à ak peuple bi c'était pas muy ça, comme ça comme ça voter dañ ne ko won li fi jaaroon yépp dañu bëgg nga defaraat ko tëggaat ko tëgginu bu bees ba Sénégal injustice dafay jóge ba Sénégal guerre dafay jóge ba Sénégal corruption ak ni ñuy tabbe ci administration bi dafay jóge ci lu bari matul. léegi autre décision bu ñu jàpp ne def nañu ko avant ñuy terminer mooy ay cumul de fonction un poste électif et un poste nominatif bon si vous voulez corroborer ça va être très compliqué ils ont annoncé la mesure par le biais donc de du premier ministre Ousmane Sonko qui a reçu instruction que ne képp durant un mois comme délai joxoon nañu un mandat électif pour me concentrer wu fal en tant que membre du gouvernement c'est à saluer non bokk ne saluer vraiment il y a des actes forts de hmm. de ci parce que si bokk na ci ay ati ati ati yi réfléchir mané mais Sénégal. mais est-ce que tu on a on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui on est en train de les arroser de vin rouge peut-être parce que. ah gis nga ni ñuy ni def ak ñoom nii. attention Moussa. na def ak ñom ni man personnellement non la doon def ak Macky Sall en 2012 bañ ko falee. Hmm. ni ñuy defeek ñoom nii ba nga ba nga jëkkee ca yëkkati xeer ya voilà ba mu ne woon ca <laughs> ca di xeex ak di sànni ay xeer ak léegi mënatuma ko mais ca Ablaye Wade ba ñu koy fal wa maa ngi koy fàttali ci benn écrit bu ma def hmm. ma ne leen man 2000 étudiants laa woon France oui. mais pour bokk ci ñiy changer réew mi dama jële ay France si sama propre moyen jënd billet ak ñoom Alioune Badara ñaaw ñëw yal na ko yàlla yërëm ñoo tase woon Paris man ma jiitu leen ak ñoom Condéto ñaar dina ko mën a firndeel ñu ñëw topp koñ bi topp dëkk bi di wax changement soppi dafa jot mhm. mais la loo ci gis Ablaye Wade bokk naa ci ñi ko gën a xeex ci àddina Macky Sall après bokk naa ci ñi ko gën a xeex ci àddina gis nga ñi ñu fal nii mm. bés bu ñu tegee Mm-hmm. invité di nga lu c'est-à-dire que dañu dañu dul may kenn ñu jël suñuy carte jël suñuy xob dénk nga jël mais sa pas moo ko tëggoon walla moo tabax. alors fi ñuy professeur justement mooy ñenn ñi dañuy dem sax ba yaakaar mbir mi est-ce que Sénégal tey euh, ber est-ce que nous allons continuer comme il l'a dit consolider li fi nekkone ba paré dougat continuer di nek CEDEAO UEMOA est-ce que également nos partenariats avec des pays occidentaux comme la France nous ko d'abord raffermir les liens et peut-être relancer véritablement donc euh, jox benen orientation nos rapports. bu la rek économiste waye amna ci sama wax yow rek une ñuy rapidement. on a deux minutes pour ça. sama xalaat mooy. oui. ñëpp xam nañ la monnaie est un attribut de souveraineté. absolument réew yi développé yëpp dañu am monnaie bop mais pour l'instant instant dama ne bu ngeen monnaie seen monnaie bop et je pense que même moi, France su mu nekk nii ligne yaa ngi commencé bouger France comprendre que ne mais la xewoon woon et que c'est le moment nous toogaat ak France dans un cadre apaisé sans passion. pour voir qu'on d'où le sens de respect de de, part et d'autre. ce n'est euh, euh, plus l'aide au développement c'est le partenariat évoqué par le président c'est le partenariat économique. et Sénégal doit faut diversifier avec tous les États du monde qui veulent travailler avec nous. et même même revoir les contrats pétroliers et gaziers mais dama euh, autoroute à buñ la koy wax <laughs> mais nga xool. loolu moom c'est choquant. c'est-à-dire que da ngay toog 30 ans durant. nan la état bi mën mais on risque d'avoir la même chose avec le pétrole. non non xam nga. Euh, mooy li ma doon wax. l'état à moins que ñu revoir quoi. l'état peut tout ou il n'est rien. oui absolument. mais maintenant ci li mën a nekk état bi waru ci bàyyi lu toll ni. tarfatal ay nii. c'est-à-dire que lépp la preuve autoroute à péage c'est vrai après yokkaat nañu délai bi c'est-à-dire que man bëggoon naa xam ñan ñoo doon signé contrat yooyu <laughs> ndax ñooñu ay doomu askan mais c'est des sénégalais comme vous et moi c'était sous Macky Sall fii la ñu fekk aussi professeur mais boo gisee au état du Sénégal ci autoroute bi nga xool mais sa yaram day daw nga autoroute à péage bi mais ni mu doxee man moom laay jël tous les jours taa bu ma fa rombee damay mer mais du ma xam fu ma toll ma ne la nit mën a li wax les bijoux de famille li ëpp solo ci dundinam mu jël que tay la ko comme ça ay ay ay ay ñoo ay doxandem lañu c'est-à-dire que ñak plus de pour gérer des plates-bandes non non en réalité soit dañu paresse dañu tayal <laughs> soit dañu néwelé xam nga le général de Gaulle disait souvent un État n'a pas d'amis un État n'a que des intérêts mais quand on est en face à un parti mm-hmm. pour signer un contrat mm-hmm.

le win-win hein? c'est-à-dire que ku nek ci li ngay un partenariat gagnant gagnant nek ci rew mo xamné mhm. amna zircon amna pétrole amna gaz amna or ñu ngi sax de quelque part amna ñu jama nañu ay mais dañu koy. <laughs> dañu restructurer parce que mënuma jeexal wax c'est des espaces vivantes oui surtout ya bari yëpp yi Sénégal de manière générale waaw wax ne ne euh, may mbokk sonn dañu maa ngay ñaan Fatou Diouf ministre ba bees bii ñëw mu dimbalil nu mais mu gestu nu bëggatu nu nuy guni yi locco waaw loolu tamit bokkoon na suñu diggante day xeex immigration clandestine bi andi si ay saafara Sénégal on avait l'une des mers les plus poissonneuses au monde mais ay nit ci sen tayef ci sen bakken ak nafsu mais ñoo duggal tay askan wi dix-huit millions de personnes mais ci guutu gi ñu nek ba liggéeyu mool nek lu jafé jafé jafé pour moolu bari ñi tey dem nappi il faut que presque mu dem ba Gambie wala ba au fin fond de la Casamance alors que bu jëk ba bo tëmbalee sa gal fi ci bari geej bi fi mais do sori trop da ngay dajjën waaw da nga naan taxaw nii sax gis ñi da ngay taxaw nii mais am na nooy amee kii sax boo boo boo plongé si géej gi da jàpp jën benn anecdote sama benn waay maa koy nuyu au passage Cheikh Cheikh Ngom dëkk Bargny nee na génnoon na ci tefes gi euh, taxaw ci plage bi am ñu mu àndal seen nekki neex ba jekki rek am jën yu génn di tàccu loolu <laughs> waaw waaw c'est c'est <laughs> c'est l'âge d'or c'est-à-dire que mais dara yaaxoogul gis nga Mauritanie fulla ba mu am ba jël géejam mu nekk oram ak pétrolam saytu ko saytu boo xam ne ñun dañuy dem di jéegaani di yolwaani pour Mauritanie may ñu tuuti jën mais noonu la suñu jën mënoon mais jën nag mën nañ ko defaraat dañ koy régénérer rek bàyyi ko mu repos ñu xoolaat filets yi ñuy pêché acteurs yi xam ne donc yow d'accord nga ne rupture c'est possible prospérité c'est possible au Sénégal également un Sénégal le Sénégal pourrait être un paradis sur terre ma bàyyi la nga tàggatoo yegg si nañ ci njeexital émission bi

te mu nekkoon lu mën a ñàkk. maa lay gërëm di la sant. maa ngi lay fay Moussa di la jaajëfal ci invitation bi. ñu jaajëfal ko lu bëri moom euh, professeur Ahmet Ndiaye jamono bii moo nekkoon suñu invité ci seen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouy moo nekkoon ci waxukaay bi Assane Ndiour moo féete woon ci xarale gi cant ak ngërëm ñeel ko moom ci jàppale gi yéen itam mbokku déglukat yi di leen gërëm di leen sant ci teewlu gi di daje incha allah dimanche ak beneen gan laata loolu itam ñuy profité ci mbir mi. Euh, di leen wax ne euh, bu ñu yegsee ca wari ga fekki fan rek kenn ku nekk ñu ngi lay baal ax di la baalu ax di ñaan yàlla may ñu ñuy jëm ci ak jàmm te yeggale ak suñu sago jërë ngeen jëf dimanche su jàmm.